asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem ku nu fekk ci jataay bii di leen jox seen wàccuwaay waaye di jël nuyoo bi di ci jiital sëriñ Muntaxa di ñaan yàlla guddal aw fanam te wéral ko ak mboolem njaboot sëriñ Tuubaa gépp tawatina seexi sëriñ Touba yëpp di jël sunum nuyoo si ndigalal sëriñ Ahmad Jaw miinoo àndal di sunu sëriñ di taalib di sëtub maam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mu fekk si xaritam nag soppeem àndandoom wëllëreem di koo xam ne seen ñaari maam ya ànd ba nu àndoon si toolu lislaam ba si keppaaru sëriñ Touba ñoom ñaar ñii noonu la ñu ànde muy kan sëriñ Maam Mor mii mu sëriñ day maan mu sëriñ mam Mor mu sëriñ Mor sëriñ Mor Kayre sëriñ Mor Kayre mi nu ko fayee nag lu waay gàtt-gàtt dégg xam jëfam si toolu lislaam xam li mu liggéeyal sëriñ Touba waaye xam li mu bind jëmale sëriñ Touba kon tey jii bu nu koy fàttaliku moom mii di sëtam kenn dox digganteem ak sëriñ Mor Kayre mu koy fàttaliku ànd koog mboolem ñi mu bokkal mboolem ay kilifaam mboolem ñi mu féete ak mag ba tey jii yàlla boole ko kenn si njabootuk sëriñ Touba muy soxna su Mbàkke mu sëriñ Seex Gaynde ma mi nga xam ne liggéeyu maamam ba moo koy taxaw di laylatul xaddar muy kenn nag si sëriñ Mamor mii waaye sëriñ Mamor bokk si njabootam bokk si ay jàngkatam bokk si ay soppeem bokk si ay xaritam te lépp sëriñ ma Jaw mu baax mii daal di koy dox ñu ndogu ba noppi mu woo sëriñ Axma ma wooma neenu dama bëgg ngeen demal ma sëriñ Mamor ndax budul woon ak daayira yii toog bu dul woon ak soxna may bii ma bàyyee maay ñëw ak sama jëmm ak sama tànk ba toog sa ëttam boobee si boobee ndax ma man saa barkeelu ndax la maamam ju baax ja liggéeyal sama maam ja sëriñ Touba kii mu yebal nag mooy sëriñ Mamor sëriñ Mamor ay moom soxna su wax ne si kàddu sëñ Axma mii ma ngi lay sant ma ngi lay gërëm waaye ma ngi lay ñaanal. waaye ma ngi sàkku ay ñaan si yow ndax sëtub seex seex rek lay doon te sa maam ju baax ja sëriñ Touba xayewul kenn gontoo ko xëyewul benn seex gontoo sa maam ju baax ja kon bis bii nga xam ne moom lañ koy fàttaliku nga tàmbalee ko si alquran salaatu ala nabi ak xasiday sëriñ Touba ak ummal islam bi yëpp nga ànd koog ñoom nga ñaanal ko liggéey soxna may bii mu yeggale ko ba yeggale ko fu faw xa njortam moom itam ma ngi lay ñaanal loo tàmbali yàlla na yegg kàddu yii nu yëkkati nag sëñ Axma baax rek yaatal ko dénk nu ko ndax ñun maamam rek la nu yaakaar Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ guddi guddi teenu maamam la nuy fanaani muy sunu sëriñ bu nu àndeek moom si ndigalal soxna su gaynde na ñu ñëw mu dénk nu kàddu yi ak mbaaxam rek la di ñaan yow itam jaww yàlla yàlla guddal saw fan ku man sa nit nga. ku mën a taxawu sa nit nga ndax sëriñ Mamor waxtu bu jàppee bis bii koo am bu ko naree fàttali da jël sa téléphone fàttali ko ba si waxtu wii léegi rek fi nu toog di ndogu yaa sëgg si nopp soxnaa su gaynde Fatma ne ko bisub sëriñ Mamor ba de tey jii la mun la bul dem fenn xaaral ñu ndogu ba noppi bu ma mënoon a dem maay demal sama bopp ma yónni la sa nga ànd ak ngeen demal ma sëñ Mamor ngeen barkeelul ma si bis ba sàkkul ma si moom ñaan waaye xamal ko ne man waay juram man sëriñam fii ma toog toogal fi soxna may maa ngi koy ñaanal yàlla guddalu fanam te yàlla dolli ko sutura dolli ko xéewal dolli taalibeem ba lépp lu mu bëgg a yéenee liggéeyal sëriñ Mor Kayre mu def ko si barkeb seexu naa Seex Ahmadou Bamba barkeb soxna may mën a tukk xaadim rasul yàlla na ko yàgg a def nag yàgg koo ànd ak mboolem soppe yi ak xarit yi ak wëllëre yi jërëjëf jëf di ñaan ci barkeb seexul xaadim maanaam soxna Asso Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne yàlla dogal na moo leen yónni di sunub sëriñ ah di kenn ci ñun ni ko ni nga ko waxee sëñ Xaadim waaye bu du dara tam jëmm ji rek maanaam doon du ñaar kenn lan loolu la yàlla dogal loolu sëñ Xaadim yi mat na ci seede bokk yi toog yëpp mat ci seet ndax doo mboolem doomi seex yi ñu ngi ni toog te moom mii barki dem moo njaay rek moo nekk jëwriñ ñi mboolem sëti seexi sëñ Tuubaa yëpp ñu ñu àndandoot ñu falaat ñu ñun ñaar jiital ma toftal ko ci nga xam ne suñu boole moom boole bi sëñ Tuubaa la danoo dëkk waaye mën ngaa dëkk nit ci duggul mën a ànd wala mën ngeen a bokk pas-pas te duggul mën a ànd waaye mag moom danoo bokk jikko mën a ànd loolu rek ñu boole ku dégg bëccëg ku ko gis ku ne dana ma ko laaj kon nag na ngeen xam ne daal soxnaas loola mu def moom mii la ko defal waaye sant nañ ci bu baax ñun nag bu buñ fay ñëw itam sëñ Tuubaa rek lañ fay dàkk ndax am na fa wax naa ko ki dem ci siyaar bi sëñ Axma mi fa ko fekk yow fala la fekk la ma ko waxaan rek doy na sëkk mooy seexi soxna may yim ñu tuddee xam ne dañuy taamu ci bis bi saasu weer wi teroo li ma ko wax ne ko xel du dem fenn fudul laylatul xadra fudul ko soxna may kon nag bu leen yónnee nangeen xam ne daal na ngeen soxna si daal sëñ maamoon ne na xolam sedd na sant na bu baax a baax yéen ñii mu yónni itam sëñ Ahmadou sëñ Xaadim moo ngi leen sant bu baax a baax yaatal gi yëpp gis nañ ko gis nañ na ngeen fa taxawee ak la ngeen cay jàpp liggéey boobu ngeen fay liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na leen sëriñ ci pakk yi li ngeen ci yéene lépp yàlla na ko sëriñ bi waaye soxna si tam liggéey bii maamam doon liggéeyal sëñ Tuubaa mooy liggéey soxna may ba ba juróom juróomi soxna Baali Mbakke ànd ko moom di ko liggéey ba agsi fii mu nekk fi mook Cheikh Abdou Mbakke moom sëñ Cheikh Amadou Mbakke ak soxna asu liggéey ba yàlla na Sëriñ Tuubaa dimbali leen ba yéene ju seen maam aman seen waajuroo am ko ci yàlla na mu yor loolu daal noo ngi sant bu baax a baax sun xol sedd na loolu nag jërë ngeen jëf bu baax a baax seen xarit ñoo ngeen ñëwee da ngeen fekk kilifa yu bari mboolem sëti seex Sëriñ Tuubaa yi ñu ëpp ñu ngi fi toog ñu ëpp maa ngi ñoo bokk doog ñeneen ñaa ngi ñuy toog ñeneen ñaa ngi ñëwaat ndax ñun ñoo bokk lépp kon nag loolu nga wax keppaar yi moom bépp benn la waaye itam xaadim man ngaa rafetal lool sant nañ la bu baax xam nañ sa diggante soxna si yow moom li naan sement nga benn yoon ngay tooy waaye péete ragal péete day xañ a wërsëg sa diggante Sonasu moom ñëpp ko xam kon nag sant nañ bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi am mbégte mu kontaante gu yaatu di ñaanal xalif général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool ca ànd ak wér di ñaanal mbooleem njaboot ak Cheikhul Khadim gépp mbokk yi ñu ngi Serigne Thierno Kairé mi nga xam ni moom la ñuy xoole tey jëmmi Serigne Momar Kairé di ñaan yàlla kàttanal ko dolli ko tawféex mbokki nag bis bi ginnaaw bi nga xam ni ndigali bàyyi ko Serigne Moustapha Mbacke Mohamed wàcc ci mbooleem njaboot ak Serigne Mor Kairé gépp moo tax nag tey jii muy bis bi nga xam moom la ñuy fàttaliku di sant di ñaanal Serigne Momar Kairé jàmbaari seexul xadim wa werekaanu Serigne Touba xadim rasul wa ci suba bi ñu xëyee amal nañ fi njàngum alquranul karim waaye itam mbooleem xeeti bernde yëpp ginnaaw bi dog jotee ñu di amal ko ginnaaw bi nag dañoo ànd ak taxaw ak kenn ci suñu kilifa yi nga xamante ni diggante ak sëriñ Mor Kayre waaye itam digganteem ak njaboot ak sëriñ Mor ñëpp ràññee nañ ko mu di sëriñ Mbay Mbàkke moom sëriñ Ahmed moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke Falilou xam naa kon nag ginnaaw bi ñuy àddu noonu sax ci la kenn ci njaboot ak Seexul Xadim dugg si kenn ci njaboot ak Cheikh Mouhamadou Fadal mbake di sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Moussa Mbàkke Falilou moom itam digganteem ak jànkati xasida yi ñëpp xam ko ñëpp ràññee ko digganteem ak sëñ Mor Kayre naka noonu waaye itam ñu doon wax léegi sëñ Ahmed Mbacke moom euh, sëñ euh, sëñ Mbaye Mbacke moom sëriñ Ahmed moom Cheikh Mahamadou Bara Mbacke Khadim Rasoul moom itam digganteem ak sëñ Mor Kayre di diggante bu am solo moo tax na ginnaaw bi mu ñëwee ci euh, bés bi rek ñu bëggoon koo yëbbal kàddu mu yëkkati kàddu yi seere jëmale ci digganteem ak sëñ Mor Kayre waaye itam taxawaay ci bés bu am solo bi nga xamante ni tey moom la ñu nekk nii sëriñ bi ñu jox la kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu kenn ku ne sutur ak sant di ziyaara baax moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom gën koy fa yàggal ba li fas yéene liggéey Sëriñ baa yëpp mu def ko nam ko soobi ànd ko mboolem taalibe yëpp rek barke borom Tuubaa di ziyaara baax sëriñ Mamor Kayra ci bisam bii di ko ci ñaanal suñu borom dolli koy tawfeex gën ko kàttan bu baax a baax di sunu ci liggéey bi noo ko ñaana baax suñu borom guddal fanam wéral cëram ci bis maam bi di sëriñ Mor Kayre noo ko ñaana bu baax baax euh, di ziar baax sëriñ Mamor Mbacke noo ko ziar baax moom Cheikh Mamadou sëriñ Modou Boussa Diagne ñoo ko ñaan baax suñu borom gën koo kàttan bu baax baax gën koo dëgëral ba lim liggéey fas yéene liggéey suñu Tuubaa mu def ko noonu ko soobee di ziar baax sëriñ Mbaye Mbacke ibnu sëriñ Mouhamad Mbacke ibnu sëriñ Baara noo koy ziar baax baax Mbacke di ko ñaana suñu borom guddal fanam wéral ay cëram baax baax ba li mu fas yéene liggéey suñu baaraam mu def ko na nga ko soobee rek ànd ko mboolem talib yëpp rek barke borom Touba euh, suñ suñ Mamor suñ mbay mi mi ngi lay sant bu baax baax sa digganteeg moom sa digganteeg moom mi ngi jaaree sama jëmm ji waaw ñu nee mi ngi lay sant bu baax baax euh, di la ci bis bi tamit ndax saa su saa su accès da ngay yëkkati téléphone daa koy woo téléphone yëgu ko bis bi mu dagg lépp lu mu doon def daal di ñëw ndax bisam bi nga xam ne mooy bisu suñu am suñu amat bi. dangay ngay dëgg sa yitte yëpp ñëw jàng ko xasi yëkkatul xasi di suñ ci bàyyi te la jël ko ci dara noonu loolu tam mi ngi la ci sant bu baax baax nee na kóllër gi mi ngi ko gën a ngi gën a teeku baax baax di ñaan yàlla suñu borom gën leen koo teel baax baax barki suñ ci baax nee na sant na bu baax baax gërëm na bu baax baax wax yàlla nee na wax di yàlla amul sa fay na lot kàddu rek moo tax mu jox ma ko te man mi ko jox lot naa ci kàddu yi waaye nee ngi lay sant bu baax a baax xolam seet na guy ci yow wax dëgg yàlla ndax bisam bee nga xam ne moom la am saa su ne da nga yëkkati ñëw taal sot daal di ñëw yëkkati ko xasida Sëriñ Tuubaa te lenn doo ko ci laaj wax di yàlla kon loolu nee na mu ngi koy sant mu ngi ci sant bu baax baax di la gënal nee fépp foo xam ne dañ ab jàkka dafa àgg wala nit ku baax dafa àgg yàlla na nga fa àgg nee na barke Sëriñ Tuubaa barke ko xonam ñu ngi jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi kàddu yi am na solo rafet na lool ñu ngi lay ndokkeel baax di ñaan yàlla dool dooli la tawféex waaye itam sëñ Mor itam mi ngi sant bu baax sëriñ Ahmed euh, sëriñ Mbay ni nga ko waxee ndax taxawaayam seen diggante ñoom ñaar démb la tey soog a ñëw ndax euh, kóllëre gi nga xamante ni moo doxoon diggante Serigne Touba ak mag ña ca moom maamam bokkoon ci mag ñi nga xam ni dañoo ànd nag Serigne Touba mag ñi nga xamante ni dañoo ànd ak Cheikh Moustapha Al Karim doon werekaanu Cheikhul Khadim yaakaar naa diggante guy mbind ak Daaru Xuddoos génn kër la du ñaari kër ba tax na nag taxawaay boobu nga xamante ni mag ñi amoon nañ ko moom la Serigne euh, Ababacar Mbaye mii di feejli ci digganteem ak sëñ moor Kayré muy andi mag ña rek waaye itam si bi ñuy tàmbali lu ala fi wax ni. Euh, dëgg moom soo ko gisee xam ni lii dëggu la bu weex tal waaye itam muy teewaayu sëñ Mamor mii sëñ Mamor digganteem ak jànkati xasida yi yaakaar naa ni ba muy dox di jël tànkam wala muy luy ay tax boobu la amoon tamit ak jànkati xasida yi boobaak léegi tey bi mu demee ba yàlla dox mu man euh, euh, fam tegoon tànkam teggiwu ko digganteem ak jànkat yi gën a rafet képp koo xamee ku mu war a dimbali ak lu mën a doon xam naa da cee taxaw ak kemtulaay kàttanam waaye itam nag koo xamante nit bi yarekat boo xam ne digganteem ak ndaw ñi ak fi muy woo ndaw ñi jëmale mooy ci yaatal yokk li nga xamante ne mooy yoonu maam wi di seexul xadim xaadim rasul kon sëñ Maamoor ñi ngi lay ñaanal yoo tamit yàlla guddal sa fan yokk sa wér ba li nga bëgg liggéey sëñ Tuubaa lépp nga defe ko nu kawe njort ca dara bañ laa fa kastal euh, ci sa taxawaay kon xam naa sax dañ lay jox kàddu rek sa digganteeg sëñ Mor Kayre ndax yaakaar naa ni man ba ma lay xam ci jànkati xis yi laa la xamee waaye itam biñ ñëwaatee itam ñun ñëpp kenn ku ci nekk jamono soppi ko ci yow tam yaa ngi waat ci biir jànkati xasida yi kon yaakaar naa ni euh, lu yàgg lu nekk dëgg la ca euh, bëgg sa maam euh, bëggoon ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba jënd jël ay bayit di ko jëmale loole rek moo tax nga sopp googu nga am ci jànkati xasida yi ndax kenn ku ne xam ne jànkati xasida ku ko sopp la sëñ Saali waxoon rek moo ci am kon bisimilah. tula noo ngi ñëpp da di leen ziare di jiite ci nuyoo bi ak ziar bi. sëriñ Baye Mbacke mi toog moom sëñ Amet moom sëñ Baara di kenn ci noonu ay kàddoom rek mat na ko sëkk aw ma sax habitude muy toog man ma yëkkat sama kàddu ndax fu mas a nekk rek fu mu daje rek kàddu genn lay doon te moo koy moo koy yor te mate ko sëkk ci xam-xam bi ci yar bi ci teggin yi noo ngi koy siyaar bu baax ak ñi mu àndal ñëpp muy waa daayira bi waaye di siyaaree sëñ Mamor bu baax di yi sëñ Seexuna Mbaj ak jànkati xasida yëpp siyaare sëñ Moussa Diop di siyaare kilifa kër gi nga xam ne moo mooy sëñ Thierno Kayre mi jiite njaboot sëñ Mor Kayre yépp tey nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp bi di sant nag bu baax ci jataay bi ñu fekkee ndax sëñ Mamor yaakaar nañ yëngu xasida sëñ Tuubaa yi moo nu boole ginnaaw cër bi ko yàlla jox muy bokk ci seex si yor yor li ñëpp yor dafa bàyyi lépp dende ko taalibe boole ko di yëngul sëñ tubaa ci xasida yi te gëm nañ ne xasida yi sëñ tubaa yi képp ku ci nekk yaa ngi ci bëggu sëriñ tubaa ndax da li ma koy waxee rek sëriñ Thiam bi li muy yaatu yaatu gisuñu kenn ku mu indi lenn lu dul yi yoon wi li muy gudd gudd li jataay bi yàgg-yàgg kenn mus sa gis lenn lu génn ci sëriñ bi lu weesu mbindum sëriñ tubaa du pom du fur bi ni ñu koy waxee comme que dem ba ñëw moom sëriñ la nga indi la waaye sëñ bi nag teraanga jëpp daa yam ci xasida yi kon sëñ Mamboor nekk ci di jàmbaar lool nag boole ko ko yar bu mat sëkk ak ay teggin ab yaram ak teggi na moom ñëpp mën nañ koo wax ni ma koy waxee noonu la ko ñëpp mën a waxee moo ko sëñ Seexuna ak jàngkati xasida yu bëree bëri waaye nag ab taxawaayam ci man nag moom ma yëkkati waaye waxtu yu moom xaw naa ki ci man lool waaye sëñ maam Mor daa mu taxawaayam taxaw ci man boo xamante ne bii xam na ko xam naa ko yàlla xam na ko te jàpp naa ko ci moom it nag kon nag maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal li muy defal maamam jublu ci ngërëmu sëñ Tuubaa yaan ko suñu borom fekk si lu kawe njortam ba mu yàgg ko def lool te ñu ko ànd ak moom ci barkeb Serigne Fallou ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. kay jërëjëf Serigne Mame Mor Mbacke moom Serigne Modou Bousso Dieng jërëjëf itam Serigne Mbaye Mbacke moom sëriñ amet moom Serigne Baara euh, sëñ Mame Mor ñu ngi am mbégte bu baax ci sa teewaay bi teewaay bu màgg ci nun noonu ñu ko amee ci yow noonu lañ ko amee ci Serigne Mbaye Mbacke mii moom sëñ Mouhamed moom sëriñ Baara ngeen di ñaari leeri sëriñ bi euh, nu am mbégte bu baax waaye kër gi ngeen ñëw itam di kër sëriñ Mor Kayre bokk ci njabootuk sëriñ bi ndax euh, li tax mu bokk ci ak njabootam mooy bokk ci mag ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci ab ëttam. dan ko liggéeyal ba mu gërëm leen euh, kon ci njabootu sëriñ bi lañu bokk kon ñëw ngeen seen kër am nañ ci mbégte loolu nag ci seen diggante ak sëñ Maam Mor mi nga xam ni moom la leen yàlla booleel diggante bi rafet ngeen séq yu rafet yu baax di ko doxalante euh, dara nu ci wala lu bari umpunu ci bokk sëñ moor bég na ci seen teewaay bi bu baax a baax a baax yàlla na ngeen fi yàgg teew suñ borom dolli seenu fan dolli seen wér li ngeen yéene liggéey sëñ Touba yéen a ko xam suñ borom defal leen ci lu kawe seen jorto njortu sëñ Mamour Kayré xolam sedd na lool ci yéen ndax waxtu wii waxtu jafe la ci jóg euh, waaye nag teewul ak loolu yëpp bàyyi ngeen ko ñëw fekk si ko fii te yàlla rek tax ak sëriñ bi ak maamam ji nga xam ni ci ñi nekkoon ci toolub sëñ bi la bokk euh, daan ko liggéeyal ci wàllu woy di ko liggéeyal ci geneen fànn itam ba mu gërëm ko kon nag mu ngi ñaan ci barkeem ngërëm loole ñaan suñu borom dugal leen ca biir ndax loolu rek ngeen di wër yéen itam fu ngeen mën a dem itam ngërëmul sëriñ bi rek ngeen fay la ngeen fay sàqu kon yaa leen ko yàlla defal barkeem xasaayid yi jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahiim ak sëriñ Mbàkke Madina ah, mbokki julli mbokki taalibe yi ñu waa asaamul jannati soppay soxna jaara mooy soxna yu baax yii nga xam si ñoo ànd ngir liggéey bu rafet bi ñu àndal ñu ànd ko sëñ Mamour Kéré wax dëgg yàlla mu yàgg ñoo jàpp lool nga xam si ni ñu nag moom suñu waajur la woon soxna bu sa sekk ñu ànd ànd bu rafet kóllëre googu ba léegi nag moom la soxna yi di fëttali bu baax saa su gi ñëwee ñu def délégation ñëw ngir liggéey bu rafet bi. sëñ Mamour Kéré di liggéeyal maamam ju baax ji sëñ Mor Kéré moo tax ñu ànd dayaloo dayal seen wërsëg ñëw jàppale ko ci bis bi nga xam si ni nit amul lu bisam te sëñ Mamour Kéré day ku neex ànd ndax day gone gu yaru gu xam si ni xamee woo ku mag ku ko mag kon nag moo tax ñun ñëpp ñu dayaloo àndandoo ñëw di ko sargal ci bisam maamam bi te di ñaan suñ borom mi nga xam si ni moo man di jëf. mu gën ko kàttanal gën koo darajaal ci bis bi ba te bis bi lu mu ci def ren rek bu déwénee mu def ci loo ko raw kon sëñ Mamour ñu ngi lay sant bu baax ci turu soxna bu si sekk ak njabootu soxna bu si sekk yëpp ñu ngi lay sant bu baax ndax dee na maam jaara fañ tool noonu rek yokk nga ko ndax fuñ toll yaa ñu dooleel kon nag ñu ne loo nekk rek dañu fas yéene nekk kon ñu la ñaanal suñu borom yàggale fi lool ak njaboot suñu morteel képp ñu ngi sant bu baax tey jégalu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa eh, ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu sëñ Maam Kayre yéen waa daayir Ashabul Jannati ci njiitu soxna day sekk ak mboolem ñi nga àndal ñëpp sëñ Maam Mor mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare waaye di am mbégte bu baax ci seen teewaay bii nga xam ni du tey la jëkk eh, sëñ Maam wax na ni. lépp lu mu nekk rek nekk ngeen ci ak moom di yëkkati seen alal di ko jox waaye itam boole ko ak yéene ju rëy euh, sëñ Mamour nee na amul seen fay bis bii nag at mu jot ngeen ànd ko ak moom te sëriñ bi rek moo tax xasida yi muy yëngu tax na waaye sëriñ moor mi nga xam ne moo ko mooy maamam euh, te bokk ci defaru sëñ Tuubaa bi tax na itam waaye nag ngeen jàpp ko geneen jàpp goo xam ni dangeen ko jàppee kon comme seen doom euh, loolu gis na ko bu baax te mi ngi leen ci sant di ñaan suñu borom gën leen a taxaw gën leen a wéral ba seen yéene ji ngeen am ci seen njaboot waaye am ko ci liggéeyal sëñ tubaa suñu borom kàttanal leen bàyyi leen fi lu yàgg ba ngeen mottali ko barkeb sëñ Touba te ànd ko ak njaboot gi barkeb xasida yi li leen njaboot gi yéene itam suñ borom def lépp ñu def ko ci seen seenu teewaay yal ko yàlla def. sëñ Maam Mor nee na amul seen fay jërë ngeen jëf. kon nag moom wër ta sant ñun ñi ñoo ko war a sant di ko ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér sutura sax dàkk si Touba si barke sëñ Mbàkke Soxna Lo yal na ko yàlla defal jàmm te musal ko ci pakk bi fële musal ko ci ndog musal ko ci njabootam ak képp wi ku mu àndal lii ñu nekk si barke Seydina Muhammad jërëjëf jërëjëf ñu ñoo ko war a sant jërëjëf kay mbaj jërëjëf yooyu itam yow eh, wax dëgg àndandoo bu baax nga xam naa gise bi bari waaye nag dara umpuñ sa diggante ak Maam yal na ànd bi yàgg. kàddu yi ñu nuyoo mbokk ñu fi fekk yépp te am mbégte ci daje gi ñu fi jote daje daje ñoom sant bu baax ñaan xéewal ak mucc. ak barke ci bis bi nga xamante ni moom tax ñu daje fi ak ki ñu koy defal suñu borom jotale ko ci sëriñ Mor Kairé ñu sant bu baax ak mbégte bu baax sëriñ Maam Mor boole gi nga xamante ni boole nga ñu ci sa bis bi te lépp di aw yiw ak njariñ rafet lu baax a baax taxawaay bi ak doxin bi di yàlla ci sa yitte ak sa mbaax bëgg lu baax tax nañu jàpp la jàpp goo xamante nii lépp loo xamante nii nekk nga ci rek ñu ànd koog yow loolu nag sa jikko la ñi fi ñëw ñëpp seen jikko sa jikko leen indi ak sa taalibe ak sa bëgg lu baax am kóllëre goo xamante ni jàpp nañ ko ci yow ñu ngi eh, sama rakk yi nga xam ñoom laa àndal muy Serigne naa ak Serigne Bassirou ñu jotal ab nuyoo ci yow moom itam jàpp gi nga xamante ni moom lañ la jàpp mu ngi jóole ci sama rakk ji seexu na waaye yow itam ngay koo xamante ni li ñu gis ci yow képp ku bëgg lu baax te gis ko ci yow rek dañ la jàpp kon nag lépp loo woote rek dañ ci ànd ak ñaan li nga xam ne moom nga yéene liggéeyal sa maam yaa ci Serigne Touba sunu borom defal la ci tawféex lu kawe sa njortu te dëggal sa taxawaay barkeb xasiida yi jërëjëf yi cant la rek ak mbégte ak xol bu sedd ñu ñaan sunu borom defal ñu yàgg nga yàgg koo def lool te daje ci ngërëmal sëriñ Touba ak sa kilifa gi nga xam te moom ñu koy defal ak Serigne Touba ñu ngi nuyu ñu fi fekk yëpp di am xol bu sedd ci daje gi ñu fi daje ak ñoom ñaan sunu borom. ñu daje yàgg koo daje fii di ànd ak yokk ak tawféex yooyu ji tënku na ndax eh, sëñ Mamor ni mu ko waxee eh, danañ lottu ci jaaraat ci waxuma laak di ci mën a yokk la neen eh, li mu wax doon sëkk waaye daal xanaa li ci des dañuy ñaan rek seen jéego yi nga xam ni jóge ngeen ko ca kër ya baag si fii. ñaan suñu borom bindal leen ko aw yiw yiw yaatoo yaatoo yaatu waaye dolli seeni teraanga dolli fan wi dolli wér gi ba seen yéene ci alxuraan ak ci toolu sëriñ bi suñ borom defal leen ci lu kawe seen njortu sëñ Mamor sant na leen bu baax a baax Mbàkke euh, lii moom ku ne xam na ni koor diggante bu xat la surtout waxtu wi euh, ku la ci jaral jóg rek am na foo ko teg bu ngeen ko waxee xam na ko bu ngeen ko waxul xam na ko kon nag ñoo ngi ñaan Mbàkke suñ borom dolli seen fan dolli seen wér am nañ mbégte lool ci teewaay bi ndax moom mi kenn la ci kër maamam di ci nab nabi ngir bëgg taal bi du fay taal bi sax du fay waaye mu bokk ci bokk ci ñi nga xam ni ñoo ñoo tax du fay Eh, ndax bërigo ci mbartal boo poussé mu dem boo puusul mu dem waaye mu teg ci loxoom ngir bu ëllëgee bu dajeeg maamam durus gàcce ngàllaama nag li man lépp mi ngi koy def waaye yéen itam mbàkke yéen a ngi koy dooleel ndax bu wootee woon eh, te kenn ñëwul wala ñu bokk ci sëriñ bi ñëwuñu eh, bis bi mën naa neex waaye nag dana am lu des waaye bu ngeen jëkkitee seen tànk ñëw ba fii ngir xamal ko ne bis bi kat noo ko bokk lu mu xat-xat yëg na ko lool kon nag yàlla na yàlla na leen sëriñ bi fay amul seen fay mu ngi leen di booleeg sëriñ bi nga xam ne am na fay yàlla leen fayal boppam barkeb xaside yi jërëjëf sëñ Cheikhouna jërëjëf sëñ Modou sëñ Bachir jërë ngeen jëf yàlla na yàlla fay tubarkalla ko leeral yow bàyyu mbenn yaay Sénégal Sëñ Fallu dun la dural wax ji ko leeral Fallu laa Sëñ Fallu wax ji la yaa Sëñ Mamor yaa bari ndam Sëñ Mamor yaa bari yaa bari nu soxla nan nga dinu may yaw rek ki am fay falu laay yaay sing ma moora baa yaw rek yaay ku bëgg sëriñ ma moor kayra sa loxo kaw yaa bari ndam yaa bari ndam sëriñ ma moor yaa bari ndam yeesatu moorak maaram cappa colle di baayam falula yaa barin sëñ ma moora baa yow rek yaay sëriñ ma moor kayre yaa ka baax yaa bari ndam asatu sëñ moor kayre yaa bari ndam yeesatu moor xamanteeg léegi mosumaa gis mu mer ci yéen ñii di ànd ak moom yaakaar naa seeni ngeen yi mosu leen gis sëñ Mor mu mer te mi ngi mën naa jànkonteeg itam ay coono nit mën na koo def leen lu nekk waaye su reyee lépp jeex na kon yéen ñii tam ñu ngi leen di sant bu baax ndax fii ngeen nekk su ngeen fa nekkutoon sëñ naa mii mën na faa dem nekk fa taxaw foofee ndax loolu la ko yéene kon nag yéen cër bu sëñ Seexuna waroon def moom ngeen ko teggil man mii cër bu ma war a def moom ngeen ma teggil ak ñeneen ak ñeneen cër bu ñu war def moom ngeen ko teggil kon nag jàpp ngeen jàpp ma moor ak taxawaay bi ngeen am ci wetam yàlla leen yàlla ba kenn ku ci nekk fi sëñ Mor toll sëriñ Seex naa tollu fa fu ñuy seenu jàngkat ñu seen leen fu ko kawe ndax air bi ngeen génne léegi moom man dukkat naa ci am na solo lool ca neex na itam lii mooy am njàng da ngay fexe moom ba génne loo xamante ni saa yoo ko génnee soo ko defee noppi mën koo dégg tem bi mën a neex waaye itam dana ah, daaj ba dana am solo nii rek mooy yëf yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi leen di nuyu bu baax eh, di am mbégte ci seen jataay bii yéen ñi nga xam ni ni ngeen ko waxee léegi yéen a baaxoo ànd ak sëñ Maam Mor nga xam ni budul waa këram ci ñi ëpp ci lim leen ci ñi muy gis ci ngeen bokk. Eh, seen jëf ji nag daanaka lu ngeen lu ngeen di fedd leen rek waaye ci ngeen dëkk ndax euh, sëñ Mor ak xaside yi bu doon moom dong xëy na du deme nuy mhm. waaye dar gi ngeen ko dar muy wax ngeen di tontu waaye yéene ko li ngeen di tontu kenn ku nekk def ay pexeem mu njàng mi gën amélioré sëñ Moussa wax na ko léegi sëñ Mor ak yéen ni ngeen ànde néew na jàngkat bu àndeek ñamee àndal noonu euh, sëñ moor ku lewet la sëñ Mor du wax kenn dara ku nekk da lay bàyyee sa bopp boo gàttee xel sax rekk mën ngaa saaraan ndax moom du wax kenn dara Euh, wuute nag sama classe gi nga xam ne léeg-léeg ñu am nuñ mel loolu yéen a ma ko gën a xam waaye yéen itam nit ñu baax ngeen ndax euh, lu nekk rek nekk ngeen ca bu ngeen ko gis ni ngeen di doxee ak moom rek xam ni ku ko yéene li ngeen di def la ku ko yéene li ngeen koy defal moom ngeen euh, am na ay ay cëri cëri yoo xam ne am na ko ci am ngeen ko ci ak njabootam ay soxnaam. Euh, te loolu lépp ànd bu rafet rek moo ko waral kon sëñ moor amul seen fay saay sëñ Tuubaa mi tax ngeen ànd ak moom moom la leen di booleel moom la leen di booleel euh, ñoo ngi leen di gën a dénk ngeen gën a góor góorlu ndax li mu nekk tëbul tëb rek doon ko dafa daf ko sàkku ba am ko kon yéen itam boo ngeen ko sàkkoo rek yàlla mën na leen ko defal te yàlla na leen ko yàlla defal nag kenn ku nekk li na sa xol yaa ko xam suñ borom yàlla la ci fekk te mu gën ci yow ci barkeb xasaayid yi sëñ Mamor sant na leen bu baax jotaay bi xat na xëy na am na ñeneen ñu ñu fi ñëw ñu war a nuyoo ak moom saafonte ak moom te mënul nekk tax feeg jotaay baa ngi am loolu du mën a nekk kon dañuy tënk wax ji waaye nag sëñ Mor moom cant gi mu am ci yéen euh, làmmeñam mënu ko tudd euh, waaye nag da leen bàyyi sëriñ bi euh, yàlla na yàlla na ànd bi yàgg ba kenn ku nekk li nga yéene ci sa morom suñ borom def ko Euh, yàlla na ngeen dem ba kenn ku nekk euh, yor yëfi boppam waaye du tee ngeen di ñëw ci moom mm, ndax lépp mën naa nekk waaw suñ borom mën na lu nekk yéen ñëpp ku nekk mën naa la defal sab cër bu fees dell boo xam ni dootoo soxlal kenn dara waaye seen diggante di di di continuer di rafet yàlla na ko yàlla def barkeb xasaayid yi am nañ ci mbégte lool ci ci ci ci ni ngeen defee Eh, modeste beeg yëpp rek am nañ ci am na am na am nañ ci mbégte lool soxnaa yi nag nga xam ni xëy na ñoo ko sooke bokk nañ ci li ko sooke ñoom kenn du leen wax dara dañ leen di ñaanal rek duñ leen sant dañ leen di ñaanal suñu borom àggale seen bu liggéey ndax <clears throat> dañoo nekk ci ab toolub xare te sant teel na waaye nag nañ ñaan suñ borom li ngeen fi fekk li ngeen li li ngeen fi wut si suñ borom oyofal ko ba ngeen jot ci yàlla na ko oyofal tooy ba ngeen jot ci gën gën gaa rafetin gën gaa rafetin jot ndax seen seen nekkin rafet na lool euh, soxna Maguette Mbacke euh, cër bi ko sëriñ bi cërale ci boppam mënoon naa ñëw ci kër gi am lu mu wane waaye daa ñëw rek topp ci ginnaaw ginnaawam doonub taalibe euh, loolu lépp dara nu ci moom itam muy ku baax moom ndax nun ñëpp seen seeni i seen i seen i seen i diggante dara umpuñu umpuñu ndax noo dox lépp waaw kon fu ngeen ci toll rek yëg nañ ko kon nag yàlla suñ boroom gën a dëgëral seen diggante li leen fi indi muy jaamu yàlla ci jëmmam ji yàlla suñ boroom gën a def ngeen ngeen gën koo man lii nga xam ni ngeen ngeen ngeen ngeen di sàkku ci moom muy ngërëm te ngërëm li kat balay feeñ rek doom yi màgg yàlla na suñu borom def. ngeen ngeen jot ci lu gë lu gën a kawe seen njortu njortu lu ngeen am lu rafet rek yàlla suñu borom def bu ngeen ci jot na gën a na gën a rafet noonu ci barkeb xasida yi yàlla ko yàlla def sant nañ leen bu baax a baax a baax sant nañ leen bu baax jërë ngeen jëf sant bu baax sunu ndëjaay jee sunu ndëjaay am naa damay sànni xeer <laughs> Baye Abdou maa ngi koy siyaare bu baax ak mbooleem ñi mu àndal bu ma ko tuddee rek mu mën a yóbbaale ñi ci des waa Kër baay Jaaje ñëpp ndax sunu diggante umpul kenn ci ñi xam ndax diggante bi yàgg na talu rafet rek moo fi nag moo fi mos a dox te moo fi dox ba ba ba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyuwaat bu baax euh, di am mbégte ci jotaay bii nu toogaat Serigne Ousseynou buso euh, ak mbokkam mi mu dendal sëriñ Youssou Dieng ñu bàyyi ko ca Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ñëw fii ci ndigalam waaye ñëw fii ci sëriñ Mamor Kayre mi nga xam ni bis bii la fàttalikoo maamam ja sëriñ Mor Kayre euh, diggante sëriñ moor ak sëriñ Bachiru nag. di diggante sëriñ ak taalibe waaye itam sëriñ ak taalibe itam léeg-léeg cofeel am ci seen diggante ba tax na loolu yi dox na seen diggante ndax sëriñ Mor Kayre euh, waxtu wu jot waxtu wu sëriñ bi soxlaa bu ko soxlaa bàyyi na lépp lu nekkoon dem fekki ko ba yitteem mat mu doog a dellu ci ay yitteem te loolu lépp li ko waral sëñ Bachir liggéey boo xam ne sëñ Touba mi ngi ko koy liggéeyloo mu tege ci kawam muy liggéey bu diis ndax euh, sëriñ bi moom daraam woyoful waaye itam euh, kum nërta liggéeyloo du la du la téeñal comme liggéeyloo rek dana la téeñal liggéey bi li muy diis diis euh, di ko niru ci kaw day oyof tooyu ndax sëriñ bi mooy ñëw ak ndimbalam Euh, loolu tax na tax na nag ak yaatalu sëriñ Bachir tax na ku ne xam na ni mu yaatale yoon wi yaatal ko ci def ñi nga xam ne sëriñ bi moo defaroon seeni maam mu boole leen dajale leen xam ni ñi kat sëriñ bi mënta dem bàyyi leen gannaaw ndax démb la woon ci seeni maam euh, mu xam loola bu baax dégg jamono itam tax na euh, mu fédéré leen daanaka ñoom ñëpp ñu gisaat seen bopp bu baax ci toolub sëriñ bi loolu tax na nag euh, sëñ Mor bis bi muy def at mu jot sëriñ bi day am pas-pasum ñëw ci am bëgg-bëggub ñëw ci waaye jamono ak xataay koor gi ñu nekk di ko tënk ba euh, ni mu ko bëggee du ko ne mën a defee waaye ndaw lu nekk day yor maqaamam ka ko yónni loolu tey jii sëriñ Bachir lañ leen di xoole euh, kon nag noo ngi leen di sant bu baax a baax ci tànk yi ñëw yi waaye di leen yóbbante ak cant ci moom ak ku ñaan suñ borom gën ko fee yàggal gën koo wéral yéeneem ji mu am ci liggéeyal ko sëñ Tuubaa te muy yéene ju kawe suñ boroom gàttanal ko gàttandu ko ba lim ci yéene def lépp mu def ko ci barkeb xasida yi mu bañ ànd ak benn gàllankoor ci barkeb xasida yi sëriñ Mor sant na ko bu baax a baax a baax a baax cant gu am tàmbali waaye amut ab yamukaay ndax jàpp jàpp na ko jàppale ko loolu am naa ci lu ma ci xam bu baax a baax kon nag yàlla na ko yàlla fay ci barkeb Serigne Touba barkeb xasaay yi nga xam ne amoon lu dul moom yéen itam ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ngërëm la ngeen di wut fa moom yàlla suñu borom jàppandal ko ba ngeen amee ko nu kawet seen njort barkeb Serigne Touba barkeb xasida yi Serigne Ousseynou jëf Serigne Youssou jërëjëf tabaarkalla jërëjëf ta barakaatu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ci bis bu tedd ñëw ci Serigne Mamour sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax a baax boo demee ak sëriñ Yuusu Jenn mi moom sëriñ Sidi Jenn mi suñu naar Jenn nee nañ ñëw ci sa bis bi teewal la ci ñu ci siyaare bu baax a baax di am bu baax nag bokk yow bis bi bu baax a baax sëriñ bi nag ñu ngi lay yëbbatee kàddu cant ak nuyoo lu bare bare sa diggante ak moom nag moom day lu yàgg lool ndax man xam naa ci dara ci liggéey bi ko Serigne Touba dénk mi ngi gis ànd gi nga ànd ak moom di ko ci jàppale ngir Serigne Touba rek tax mu doon lu yàgg lool nga jàpp bi ngir gëm Serigne Touba loolu moom lu mu yëg la te lu mu jàpp la xolum seet na bu baax bis bii nag moom yéene ji mu amoon mooy teewal boppam moo nekkoon yéenam at mu jot mu am yu am yéene ji lool nag waaw waaw wax dëgg yàlla ndax fi nga ko féete xam na ko te jàpp na ko bu baax nag ni ko suñu cheikh naa leeral ne mat na ci seede lu dëgg la xëy na ñu bari mën nañoo bañ a xam waaye sa diggante ak moom xam nañ ci lu bari ñun nekk moom wax dëgg ndax waxtu mu la soxlaa muy gudd muy bëccëg da bàyyi sa yitte yëpp ànd ak moom ci liggéey suñ Tuubaa suñ Tuubaa rek tax te loolu lu mu jàpp la te it ku la naw la it nag saw doxin gis na ko nga xam ne ne sa lépp suñ Tuubaa rek ci ngay tàmbale ci ngay yem Mataw Sow doxin da koo rafetlu loolu Mataw bu sañoon lépp loo xam ne nii nekk nga ca da ciy ànd ak yow bu baax nag te it ku am yaakaar ci yow la it nag waaw wax dëgg yàlla moo tax daal bu sañoon moo ñëwal boppam waaye nag eh, xam na xam nga mu xam moo tax bu ñëwut it xam nga ko téye waaw bu soñoon moom day ànd ak bis bu baax ñu lay ñaanal ci barke Cheikhul Khadim bis bi ngay taxawee yàlla nga ko yàgg a taxawee te yéen a ji nga ci am yëpp yàlla nga ci dee ak ngërëmul lañ ciy sàkku rek te nga yàgg ko def lool ci barke Cheikhul Khadim te liñ ciy sàkku lépp di ko ñaan suñu borom nangu ko bu baax rek suñu borom sàmm la kàtt na la ba fi nga mu àgg bëgg mu àgg fa yëpp mu àgg fa ci barke Cheikhul Khadim mi nga xamal daa xolam seet na bu baax te di la gën a jàpp bu baax a baax te bàyyi na la xel it loolu it na la xel lool waaw sant na xolam seet bu baax a baax xam naa kàddu yi sax gën a naa jot lool gën naa jot lool wax dëgg yàlla moom yow moom xam nañ ci lu bari ñu nekk ak moom sa dugal ndax it lépp waxtu wu ne mi ngi mi lay gis ci waxtu wu ne kon nag ñu lay sant jëla la gërëm ñaanal bu baax suñu borom gën laa sàmm gën laa aar ba yéen yi nga am yëpp nga àggale ko ci barke Cheikhul Khadim di sëriñ Basiiru Mbakke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Xafoor sëriñ Maam Mor Mbakke moom maam Soxna Jaara sëriñ xam digganteem ak sëriñ naa Mbaj mii muy diggante bu yàgg di kóllëre gu rafet ci loolu ci la amlanteeg sëriñ Mamor amlante bi tubaarkal la mën nañ koo toog di ko nettali fépp ndax lépp dafa rafet dara lu ci génn sëriñ Touba amul sëriñ bi kenn ku ne xam na ne waxtu wii mu ngi ci àll bi ci ndigalul sëriñ Moustapha Imam nekk ci ndigal yi nga xam ni moom la ko waajuram sant fu mu génne tàbbiwaat feneen ci ndigalu sëñ Moustapha Imaam loolu moo ko tee teew ci bis bi ndax ñépp xam na ni ñor gu ko sëriñ Maam Mor ñor ak bëgg gum ko bëgg ak fonk gum ko fonk bërki démb la woo sëriñ naa Mbaj wax ko nan la ñuy def ci bis bi ak lu gën ak luy jagal bis bi sëriñ seexu naa waxtaan ak moom sëriñ bi jël teraanga ju bari ni ko joxal ma ko sëriñ Mamor Kayre ndax bis bi maa waroon a yónnee sax taalibe yi nga xam ne ñoo koy baas defar si si dalal gan ñi waaye délégation sëriñ seexu naa mbaj mii toog moo ko jiite ak ostaas njaay mii toog kenn ku nekk xam digganteem ak sëriñ Moustapha muy nit ku baax ci biir délégation bi sëriñ Mbay Njaay gol bi mu ngi nii toog moom it bokk ci délégation bi sëriñ bi yebal leen ngir ñu ñëw teewal ko ci bis bi waaye kenn ku nekk xam na ni sëriñ naa am na tut tànk tudde ko sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Moustapha Imam sëriñ Basiiru ci jigéen ñi yaay sëriñ Basiiru teew na di soxna astawaalo ak soxna maam jaara ñas ñoom ñépp accompagner délégation bi nga xamante nii moom la sëriñ bi yónnee ci bis bu rëy bii waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine gay Firdawsi sëriñ Mamor at mu jot day jël kenn ci mag ñi nga xamante ni dañoo amoon ngërëm ci keppaaru Cheikhul Khadim du peleen bis bii jël ñenn ci ñi nga xamante ni ñoo doon magi kër gi àndoon ak sëriñ Mor Kayre di leen fàttaliku ci bis bii waaye di leen rendre hommage rendre hommage mooy fàttaliku ci bis bii di leen ci ñaanal yàlla tey jii mu jël Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi délégation bi sëriñ Fallou gay mu baax mii toog moo ko jiite ànd ak rakkam sëriñ Alamine gay di nit ku baax di sunu xarit di koo xamante ni tubaarkal la nit ku am jom koo xamante ni la waajuram bëgg rekk bi mu nekkee ci kaw suuf ci la nekk lii jom jeet bi mu ko wanee ginnaaw li mu naanoon lépp àggale na ko lii nga sos mu doon sa yëfi bopp wala mu doon sa yéeney waajur yàlla nga ko àggale sëriñ Mbakke Faal ngi moom bàyyi sëriñ Faal di sunu sëriñ di sunu xarit ñu bokk waajur alim min iblis alcheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ila yawmi ddin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nu ngi leen di nuyu na mu gënale lislaam muy nuyoo bi gën a sell te gën matale diggante jullit ak moroomum jullitam noo ngi sant bu baax ci teewaay bi fii ngir li ngeen sàkku ci noonu day mbégte ci noonu muy yëkkati fa ay kàddu kàdduy soññee kàdduy ñaaxe ci li nu war ñun ñëpp sunu digganteeg sunu borom ak sunu digganteeg sunu moroomum jàmm ndax sunu borom subhaanahu wa taala moo wax ne wa zakkir fa inna dikre tanfaul muminin looloo tax waxtu wu nekk nuy fàttali sunu bopp te di leen fàttali yéen tamit nu gën di góor góorlu ci jaamu yàlla bu baax te di ko sellal yàlla subhaanahu wa taala ba mu nuy sàkk dara taxut lu dul nu jaamu ko wa maa xalaqatul jinna wal insa illa yaabudun te jaamu gi nu jiital ci farata yi muy julli juróom yi woor weeru koor wi ñu nekk natt azaka ci alal ju ko mate aj makka bu jàppande ndax kenn du bàyyi farata ñuy nangu naafilaam bépp jëf ju baax jooy jëf di ca dabu ngërëmal yàlla te kenn forcé wu la ko maanaam ñàkk def ga kenn du la ca teg daan jooju jëf naafila la kon li nu yàlla digal nanu góor góor lu sax ci ndax moo nuy jariñ tey moo nuy jariñ ëllëg te lu la ko tee def moom ngay gën a bañ ëllëg yowmal qiyam ku la ko tee def tamit dana bokk ci ñu ngay gën a bañ ëllëg yowmal qiyam te buñ nee la yomb ci sa biir bàmmeel li ngay gën a bëgg mooy dellu si àdduna donte benn minit la ngir jëf fi lu baax lu mu tuuti tuuti segam nag fanu jëm lu baax du fa doy te bu ñu demee rëcc lu ñu defut woon te yàlla dimbali nañu ñuy dund ba naga kon nanu njëkkanteeg sunu dikk ci xeeñtu lépp lu baax te di ko def tey moytu ab safaan man amila sayiatan fala yujse illa mithlaha wa man amila salihan min dakarin aw untee wa huwa muminun fa ulaika yadxuluuna aljannata yurzaquuna fiha bi gayri xisaab ku nekk ci li ko yàlla ku nekkee li ko yàlla tere te mooy jëf ju ñaaw lu méngook loola la ko yàlla di fay te mooy mbugal ko ndax jëf ju ñaaw ay bàkkaar la te bàkkaar ay tilim tilim la te ku setul ci ay tilim tilimam du dugg àjjana ndax àjjana kenn du fa dugg kiy taq-taq jullit bu ci nekkee li ko yàlla digal nag muy jëf lu baax dina bi àjjana te dina fa nekkee bànneex bu dul dog ba faw kon wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min li an yaatiyakum al adabu baghtatan wa antum la tash'urun nanu topp ndigali sunu borom yi ta sax ci balaa mu ñoo bett ak mbugalam dëgg la ne dañoo binde ak matadi ba tax na faaw ñuy defi rëcc-rëcc moo tax ci yërmandeem ju yaatu ji waxtu wu nekk guddi ak bëccëg muy sàkku ci noon ñu jéggulu ko ba mu jéggal ñu ngir ñu seet wecc ci suñuy bakkaar ku ñu wax abu muusa radiallahu anhu nee na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha azza wa jalla yabsutu yadahu billayli li yatuba musiu nnahaar wa yabsutu yadahu binnahaari li yatuba musiu lleyli xata tatlua alchamsu min magribiha abu muusa radiallahu anhu dane sallallahu alayhi wa sallam nee na sun boroom subhanahu wa taala day tàllal loxoom ci guddi gi ngir ki ko doon mooy ci bëccëg bi mën a tuub bam jéggal ko di tàllal loxoom ci bëccëg bi ngir ki ko doon mooy ci guddi gi mën a tuub bam jéggal ko te noonu lay doxale ak noonu ba àddina di tukki abu said al xudri radiallahu anhu nee na dafa dégg yoon bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna iblisa qaala li rabbihi bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani aadam ma damat al arwahu fa qaala lahu allah fa bi izzati wa jalali laa abrahu aghfiru lahum ma astaghfaruni abu saïd dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam nee na iblis dafa wax yàlla ne ko waat naa ci sa tedd nga gi ak sama màggaay gi ak sa màggaay gi ne doomu aadama yi du ñu duma jot ci di leen réeral di leen wàcciloo siraatal mustaqim fii ak ñi ngi dund fii ak seen ruux yi mi ngi seen jëmm yi sunu borom ne ko waat naa ci sama tedd nga gi ak sama màggaay gi ne du ma jóg ci di leen jéggal fi ak ñi ngi sàkku ma jéggal leen loolu kon day wone yaatug yërmande yàlla ci jaamam ñi ak di ñu ñaax ak a xemmeem loo bari istixfaar muy jéggalu suñu borom subhanahu wa taala ba tey day wone ne kon ki topp seytaane ci bëggam mooy kiy xuus ci bàkkaar te du jéggalu boromam kooku la yàlla waat ci biir téereem bi bu tedd boobu ne dina ko feesale sawara mook iblis ba ko iblis nee fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almuxlasin qaal falxaqa walxaqa aqul la am la ann jahannama minka wa mimman tadaaka minhum ajmain yërmande yàlla nag àgg na ci inna allah yaxfiru dunuba jamia loo mën a def ci bàkkaar lu mu rëy rëy lu ñu bari bari sunu borom dina la ko jéggal boo ko tuubee tuub gu sell abu hurayra radiallahu anhu nee na dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ab jaam def na bàkkaar daldi ne yow sama borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ma sama bàkkaar bii boromam daldi ne sama jaam def na bàkkaar te xam na ne kat am na buur buy jéggale ay bàkkaar di mbugale ciy bàkkaar jaam bi dellu defaat bàkkaar ba daldi jégguluwaat boromam boromam waxaat la mu waxoon jaam bi delluwaat defaat bàkkaar ba jégguluwaat boromam boromam waxaat la mu waxoon boromam daat ko ci tegal ne defal lu la neex jéggal naa la al imam Qurtubi nee na xadis bii day wone màggaayu njëriñi istixfaar maanaam di jéggulu sa borom saa boo wàccee ndigalam nee na day wone tamit màggaayu ngëneeli yàlla yi ak yaatug yërmandeem akuk lewatam akuk tedd ngam waaye nag nee na amut sikk sàkk ne jéggulu googi xadis bi di wax du jéggulu rek ci sa làmmiñ maanaam ne astaxfirullaa rek yem ca waaye day doon loo xam ne danga koy tibbe ci sa xol rëccu bàkkaar ba fas yéene bañ koo defati li yàlla wax ci mujjug xadis bi ne i'mal ma shi'ta faqad ghafartu laka defal lu la neex jéggal naa la al imam an-nawawi rahimahullahu taala nee na lim ci jublu mooy fii yaa ngi def bàkkaar di ko tuub ma di la jéggal nee na moom al imam an-Nawawi donte bàkkaar bi danga ko def téeméer yoon wala junni yoon wala lu ko ëpp sax te yoon wu ci nekk nga tuub ko tuub gu sell yàlla dina la ko jégal yàlla dina la soppil bàkkaar yépp nee na sax boo boole woon bàkkaar yooyu yépp lu ñu bari bari tuub ko ci genn tuub gu sell sa tuub googee wér na yàlla dina la ko nangu te sunu borom moo wax ne walladina amilu sayiati summa taabo min baadiha wa amanu inna rabbaka min baadiha la xafurun rahim dellu waxaat ne fa man taaba min baadi zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha xafurun rahim dellu waxaat ne annahu man amila minkum suan bi jahala summa taaba min baadihi wa aslaha fa innahu xafurun rahim loolu lépp day wone ne waxtu wu la seytaane ma ne ba wàcc loola ndigalal sa borom boo ko tuubee te sellal tuub ga yàlla jéggal la te jéggulu gi ngay jéggulu yàlla day wone ne am nga boroom ni mu ko waxee woon ci xadis bi weesu day wone ne nangu nga sag njaam day wone ne xam nga ne yàlla lu ko neex def day wone ne ragal nga yàlla waaye yaakaar nga yërmandeem moo tax subhaanahu wa taala day bëgg lool ci jéggulu gi ngay jéggulu say bàkkaar kon mbokk yi laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu gafurun rahim bu leen bari bàkkaar ak lu ñu rëy rëy ba jàpp na yàlla du leen ko jéggal yàlla bàkkaar yépp lay jéggale bu ngeen ko tuubee tuub gu sell rëccu ko fas yéene bañ caa dellooti te bu leen yeexee tuub mukk fu ngeen fi defee ab sofaan daal di leen koy jégglu fa saasa ndax xamu leen kañ la yàlla di jël seen bakkan te waxtu wi ko yàlla di jël li nga defoon lépp def na def na la ko wanaat def na ko jaaralewaat fi sa kanam te deeful nangooti sa tuub wa laysat tawbatu lilladina yaamaluuna sayiaati xata ida xadara ahaduhum mawt qaala inni tubtu laan te foofi defee bàkkaar lu ko mën a fekke lu mën a fekke bàkkaar ba barab ba nga koy defee dina la seede ëllëg suuf si seede ko say cër seede ko moo tax dalal di def fasaasa jëf ju rafet foofa ngir yooyee seedeel la lu rafet loolu te sax innal xasanaati yudhibna sayyi'aat boo defee bàkkaar toftal ci jëf ju rafet da koy far yàlla ko wax waaye bokk yi nañu bàyyi xel ne lii ñu wax lépp mi ngi aju ci xàq ji dox sunu diggante ak sunu borom waaye xàq yi dox sunu diggante ak sunu moroomum jaam jaam bi rek moo nu ko mën a jéggal bu nu ko matalewut ndax maandu teg yàlla yàlla day maandu sa diggante ak sa moromam jaam moo tax sallallahu alayhi wa wax ne jëw moo gën a bon njaaloo saxaaba yi ne ko loolu nu mën a nekk sang bi mu ne njaaloo sa diggante sa borom la mën nga koo tuub tuub gu sell sunu borom jéggal la ko ndax yërmandeem ji yaatu yi waaye jëw sa diggante ak jaam bi la jaam bi mën na la ko bañ a jéggal te bu la ko jéggalut yàlla du la ko jéggal muy xàq joo war a fay ëllëg yowmal am te jëw woyefal nañ ko lool ci say jëf yu rafet nag ci lañuy ñuy jël faye ko jaam boobu wala nga gàddu lenn ci bàkkaaram mbokk yi kenn umpalewut léegi ni nit ñi melowoo ni ñu jikkawoo ni ñuy doxale muy ci fépp nag ci sunu réew mi ci plateau télévision yi muy ci internet bi muy ci réseaux sociaux yi muy ci mbedd mi muy ci place publique yi ba ci sax barab yi ñu war a wormaal. koy ñaanal bu baax na yàlla yokk xam-xamam te yàggal ko ci kanamu tali bi yëpp danga koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax naa kàddu yi comme niñ ko waxee rek ànd ci délégation Cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Mouhamadul Moustapha imam moom cheikh Abdoul Khafour moom maam moor Diarra boroom Sàmm ñu teewal ko fii ci ay kàddoom yoo xam ne yaakaar naa ne délégation bi nga xamee ne moom la jiital sëriñ naa Mbaj mii nga xamee ne moo ne sama kanam daanaka mooy lépp moom la moom moo jiitu ci délégation bi ngir digganteem ak Cheikh Mouhamadul basiir Euh, daanaka dañuy wax ne suukar ak ndox la ndax yàgg nañ lool moo tax lépp mu jël ko teg ko ci loxoom ñu ñëw fedd li loolu mu teg ci sëriñ Babacar Ndiaye mii doon wax bokk ci délégation bi ak sëriñ Jiri Diop xasaayit mii nga xamee ne doon na ubbi jataay bi ak sëriñ Baye Diop ak sëriñ Abdou Ndaw ak soxna maam Astu Ndiaye moom soxna sëñ soxna sa suñ sëñ naa la ak soxna maam Jaara Ñas ak soppe yi sëriñ Seexuna Mbaaj yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ ci bis bi ndax bis bi wax di yàlla comme ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxe dane lépp sëñ Seexuna Mbaaj la ndax su demee ba am alaaxa digganteem ak sëriñ Maam Mor Kayre kon suñ sëñ naa mooy daanaka mooy bis bi mooy lépp rek kon loolu tax soppeem yëpp teew nañ ñoo ngi leen koy présenté leen si représenté mi soxna Ndey Sow ak soxna Ngone saw ñoo ñëpp bokk nañ ci délégation bi ñëw fi sëñ Basiru nag taani rajim bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan di kulli janna min daaratil minna ni yaasal minna ataaniyal marka bu fii daari minnan inda tasinta duxula nii daari minnan ñoo ngi siyaare ñëpp di ñaana Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko siyaare rakkam ji di borom dëkk bii di sëriñ Ahmadou Muxtaar Mbàkke moom Cheikh Mamadou Moustapha ak mboolem njaboot gi du nuyu baax kilifa yi nekk ci baas bi di ci jiital sëriñ Xaadim Mbàkke Mohamed mi fi bàyyi ko léegi siyaare bu baax njaboot gi fi fekk di siyaare bu baax nag waa kër sëriñ Mor Kayre di leen ñaanal gudd fan ak wér mbooleem ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne ñoo ngi lay nuyu di nuyoo bu sell bu tedd di nuyu baax sëñ Alamine Gaye di sunu xarit di sunu soppi di sunu wëllëre siyaare bu baax sëriñ Seexuna Mbaj ak sëriñ ci Jóob ak ñu ñu fi fekk noo ànd ak sëñ maam Seex Anta Baabu ak sëñ Abdou Salaam ak sëñ Ahma Guèye teewal fi soxna Bali sëñ Xaadim Mbuub mi ñu fi fekkit ci délégation bi la bokk ndax kàddu yi ñu yëkkati mën na ko waxal soxna si ndax seen diggante mel na ni siyaare bu baax sama soppe bee di sëñ Moustapha Sylla ndax murid yi nag kenn ku ne ak sa sëriñ Tuubaa bopp kenn bokkut ak sa morom di sëñ tubaa waaye man ak moom am na sëñ tubaa bu nu bokk li ko waral mooy dugg nañ ci oto maa ngi moom départ Libreville ba àgg maa yomba maa yomba nag ku fa dem danga naan man sama gëm sëñ tubaa defoon naa ni dafa plafonné waaye boo demee da ngay xam ne que yow départ go woon ci ak ngëm 4 heures du matin ngay départ Libreville suba ci 3 heures du matin ngay àgg maa yomba te ci 4 4 bu ñu climatisé ngay dugg te ñun bañ fay dem ci lañ dugg nanu xalaat moom ca jamono yooya. nu mu fa demee nu mu fa nekkee woon nekk fa juróomi at yu mat di bind ak di julli dañ naan la fii la daan toog fii la daan signé fii la bindee mois yi bu dangay ngay daw ci àll bi ba ci yàgg doo xam ndax guddi ga ne wala bëccëg ndax garab yi day ràbbaloo mu ne fa liggéey bu liggéey bu rëy boobu am jom ak ngor ak fit ñibbi si indi nu sérité bii kon noo lay siyaare bu baax a baax soxna Baali Muntaxa nag wax na ni ñu ngi nuyu sëñ Mamor di ko sant di ko gërëm ndax cant ga ngërëm mooy seeni jataay bariwut waaye lim la santee mooy ku lëggeel sëñ Tuubaa ba nu gërëm ko nu koy defal bis nga tudd ko ci nee na kon moom moom moo amul sa pay ndax moom buñ ko dee tudd sëñ Tuubaa tax buñ koy teral sëñ Tuubaa tax lépp lu mu am sëñ Tuubaa tax kon lu ñuy defal sëñ tubaa ku liggéey sëñ Tuubaa ba mu gërëm ko ñu tudd ko ci nee na moom loolu tawféex la ci moom kon nag nee na moom moo la ameel cant moo la ameel ngërëm lii sëñ Xaadim wax moo ko wax mu ne bu fi dara jóge jëm si foofu ndax la fa war moom defal na la ko te li war fii lépp moom moo ko war a def ndax nag Serigne Mor Kayre nag dafa ni la la la war foofu ca Daaru yow li la fa war defal na la ko fa te fii li li fi war moom moo ko war a def Serigne nag buñ ko dee defal bis tudd ci tudd ko ci moom loolu ab taw feex la ci moom ndax nag bokk na ci ñi nga xam ni nag Serigne bi nee na leen jërëjëf te Serigne tubaa kum ne jërëjëf. nga wuuteeg nekkum ko waxul ñi sant kayre bari na waaye nag lam leen gënee mooy daa wuyu si woote boo xam ni ñeneen ña ñëwuñu sëriñ Moussa Ka daane Cheikh Ahmadou Bamba siggil nga paa leen ña wuyu si ña fa des ñeenañ leen sëñ Mor Kayre wax ni nag fii nu ne nun muy sunu ci mii di tuubaa nee na nan ko gën a wagga te gën koo foog ndax moo gën fépp nee na waaye laa laata sëñ bi di fi ñëw nag nee na bawol du woon dara moo tax mu ne bawol bon bonoon na waaye moo gën feneen ngir ñi ko dëkkee léegi ñoo gën ñeneen bu joor gu taal yi doon waral gënug barab kon Màkka ma dina gën ci dëkkee arab ne fii mu ne nii ay xeer ak wër ak i tund te nag ni ko fa tëdd moo gën ku baax ak ku bon kon nag gaa yi wuy si woote bi di leen defal bis yi di leen fàttaliku lu am solo la te yow lii nga def soxna si nee na moom bég na ci ndax kenn ku ne nag li sëñ bi defal samaam yaa ko war a wane moo Cheikh mu Moustapha mii li mu rawee ñëpp du ma ne doon gi mu doon na taawu sëñ bi rek déedéet man du Première laa ko tuddee li tax ma tuddee du Première mooy bi ñu indee sëñ Touba fii Touba gépp ni làkku ngeer kepp la beneen almet mën na koo taal waaye buñ ne xaadim borom jumaa ji doom ju am joma tax kon nag kon nag kenn ku ne la fi samaam bàyyil yaa koy defar di di ko di di ko wagar te yéen ñii nii ngeen àndee doon ay doon ay seeti seex def kuréel gu mel nii dafa am solo ndax nag léegi nga li sëñ Alamine wax nee na moom maamam Mbàkke Kajoor la jébbuloo booba nag euh, euh, ceeb bi niinagul étage amagul ciment amagul sëñ Tuubaa ne nii ni bi an usarriha bi ànd ni malazun wa mafsuhu ne leen yàlla nee na man wéeruwaay laa te làqulaay laa te te képp ku aju ci man ne di di di nga mucc te ba noppi ñam ko waxoon ña ca ëpp moom ak ñoom a bokkoon daara te loolu bi ko sëñ bii wax la ëpp ci mbooloo mi dañoo ñibbi ñu néew des fa ñooñu fa des nag ànd ak moom ci loolu ak seen ngor di ko xaar mu dem ci géej gi ñu toog di ko xaar mu ñibbisi ba jàpp ni dafa war a ñëw tuubaa ñu la ko yóbbaat ko gànnaar ñooñu di ko xaar mu nekk njaareem ñu koy xaar ba niñ ko indee Touba kon ñoo ñu ay gor lañ ay jàmbaar lañ ay borom fit lañ ñu ñu war a fàttaliku lañ ñu ñu war a ràññee lañ ndax nag kenn doolee jël. sant itam bu baax bokk tali bi ndax kër gi bu àggee fii mbaa mu mel nii daayira yi la ak njabootu sëñ Mor. waaye buñ tuddee sëriñ buubu jenn miy jëwriñ ji jiite fédération ko sëñ Mor Kayré gépp mën na ni tudd nañ ñëpp kàddu yu gàtt lay doon rek ndax njàng jot na te waxtu koor lan nekk suñ xol dafa sedd ci kàddu yu yi fi jaar yëpp sant bu baax itam nag sëriñ Bassirou Mbacké mi nga xam ne moom leen tudde woon bis bi ci taxawaay ni ko sëriñ Cheikh naa waxe Euh, loolu am na te yàlla nu boole maag moom mii boole ko sëñ Basiiru ci lañ jaxasoo bis bii mu ciy def lu baax di ko defal sëñ Seexuna di mu ko defal loolu rekk la waaye jubluwuñ ci dara bi ci des kon ñu ngi sant bu baax njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye si ñii suñu wóllëre leen suñuy xarit leen li may nekk ñoom bari na lool ñu bokk sëñ Tuubaa at mën nañu rendre hommage kenn ki ñu ànd nag Seexul Xaddim daaw sëñ sëñ Xaadim Sugu mi fi toogoon sëñ jéeri lañ tuddal sëñ jée Seex jéeri waaw di sant bu baax itam magi taalib yi doon wax lii ñu wax sëñ Ibrahima lii ñu wax doy na sëkk sëñ Ibrahima Ngom baayam Baay kode sama waajur la waaw te it xam naa man ni ma. bi ma day fi jaaran kaana aw saara yaa maayan an xadimin xablu aw saara حبل وأوزارا يا مكرما في جارا قانا وسارا أما وعي الخديم من خبل قديم قبل وأسارا يا مكرم في جارا قلعنا وسارا يا مواعي القديم القبل وأسارا خديم قبل وأخرى يا مكرما ديفي جابرا قرأنا وصارا يا مواعي الخديم القبل وأخرى أرى الخديم قبل سارة ناداك في وبربا دلبلاء خوادمكم واليوم خوادمكم Yeah. حملنا وتكريماتي فغواثها وجملتها أبائها سارا أو سواء كلمات فوعز على جملة الأسواء أسارا